suuf ak si kawam doon ñaan rek ndam lii nii du ndamu seen man dama naan ndamu buuba jóob la fa mu tëdd yàlla naka fayee suuf sedd loolu rek laa koy ñaan ñun ñëpp kontaan nañ ñëpp Sénégal gi ñëpp kontaan nañ tëngeej nekk danduma may kontaan si Ismaïla Madior Fall mi def lii si biir terrain def euh, takku bi Ismaïla Madior Fall démb la ma woon ne ma tóola da nga bokk ci man te ngay jarbaatu Pa Bouba ma vacciné ko rendre hommage tey jii def ko fii si terrain bi te li mu def muy moom ak tontoo la foo mbay Matar Ndoye kontaan naa si ñoom bu baax a baax a baax a baax ñoom ñëpp kontaan naa si ñoom li ñu def nii dafa rafet sañu famille bi ñëpp kontaan nañ si ñëpp kontaan nañ si ñëpp kontaan nañ si jërëjëf ñaanal joueur yëpp Sadio Mané yal na ko yàlla defal jàmm mu tane ak jàmm salaam ñëpp la ñuy ñaanal ñëpp kontaan nañu. jaajëf merci. alors kilifa gi ñu ngi ziar. ñu delloo bu wër a wër. tey naka nga dundee victoire bi xoolal allah sant yàlla bu wër a sant yàlla mënut ta weesu lii waaye daf ci am benn anecdote bu ndaw boo xam ne man moom laa ci bëgg a wax mooy que tey jii dafay marqué l' anniversaire de Pape Bouba Diop mu daan sol le numéro 19 de l' équipe nationale ñu ñëw joué am 1-1. ñu am 1-1 le but de la de de la qualification kan moo ko dugal mooy le capitaine d' équipe boo leen xoolee ci brassaaram il est mentionné le numéro 19 de Pape Bouba kon tey jii delloo nañ jukkal Pape Bouba Diop macha allah Sénégal gépp kontaan. kontaan nañu kontaan nañu yàlla na yàlla defal jàmm yéen aussi tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant man anecdote boobu laa si bëggoon wax que ne ki dugal bii bi tey jii di marqué l'anniversaire Pape Bou Diop c'est le numéro le capitaine de l'équipe qui porte dans son brassard le numéro 19 on ñu gën a nañ billaahi wala kontaan nañ ci Pape Bouba Diop di ko wax yàlla ko yàlla yërëm te xare ko àjjana nga dundee victoire bi. waaw a rek kontaan xam nga nii la mënoon demee quoi parce que Sénégal dañoo namul victoire ci coupe du monde bi nii la mën demee. mu demee leen lu dul nii ñun dañoo soxla woon victoire ñu gërëm Aliou Cissé Aliou Cissé barki Serigne Touba ñu ngi koy sant man critique naa ko chaque jour mais maa ngi koy sant di nga gërëm parce que tey li Sénégal yi bëgg yëpp def na ko barki Serigne Touba li Sénégal yi bëgg yëpp ñoo ngi ñaanal ñëpp senegal yëpp yàlla nañu ndam bi jik nan dem final final lañ soxla final final jàmm jaajëf jaajëf frère taxaw ni nga jàkkaar sama gars waaw jaajëf sama gars yi maa ngi leen di ziar waaw victoire bi neex na trop neex na trop qualification bi nañ gérer huitième de finale bi rek ñu dem suñu yoon coupe bi lañ soxla lii ndam rek a waral yàlla na jàmm moo am Sénégal match bi Kalidou Koulibaly def ak Ismaïla Sarr rend hommage ki nga xam ne moom moo di Pape Boye. waaw wan nañ ne ñoom ñooy magu équipe yi te lii nii mënul woon ñàkk 2002 gis nga way bii ma teg nii moom la Assane Mbuub ñaanoon ne 2002 yàlla na Sénégal am ndam léegi nag 2022 bi la ñuy ñaan yàlla may ñu ndam bi ñu ko fii nii bu neexee suñu borom. jaajëf one love. ñun du ñu wax. waay kontaan kontaan continuer affaire bi xam nga la. Alioune Cissé affaire bi moom la man maa wax ba suba barki yonente bi yàlla da ko may chance nañ ko ko nangul mu jeex Sénégal jëm kanam gis nga fii li Youssou Ndour naan bu fi yemee sax mu neex bu fi yemee sax doy ñaanu yàlla mu yem fi moom man xoola Alioune Cissé depuis 2002 coupe du monde laa bëgg Alioune Cissé Alioune Cissé première victoire. mbégte bi mbégte bi kan bi am nay savouré ba tey quoi yàlla fi jàmm yàgg waay dama bëgg mu mel ndox xam nga kontaan naa oh, gane oh, waaw coupe bi la ñuy yàggam de ñun ñun coupe bi la ñuy yàggam oh. bàkki maam bi eh eh waaw ku dee sa yaay juraat ma dóor ñëpp découragé ma encouragé peuple Sénégal. alors ndeysaan naka nga. Eh, eh, eh, frenel frenel balaa nga muy mbëkk frenel frenel. nuyu di la ziar naka nga dundee ndam li. non man maa ngi tuddoo góor gi waaye dañu may wax ondi ah, li tax ma am mbégte am di sant yàlla bu baax si nga tey maître Abdoulaye Wade mbuum mi mu sol di ko seetaanee maa ko yónnee ngir bëgg réew mi ndax Abdoulaye Wade ni mu bëggee réew mi. ba may peinture verte zone rouge di ko def fii ñëpp dañ découragé woon maa jóg guddi laa liggéey fii ba jaxaay may liggéey pour peuple Sénégal ab ab équipe boo ànd ak moom bu ñu ko gañee benn mbas waroo découragé ñëpp si war a jàpp man looloo tax may wax pour peuple Sénégal ñu bañ a découragé équipe boo ànd ak moom muy gagné tey bu amee défaite da nga ko war a soutenir jàpp loolu laa leen waxoon tey soutenir nañ Lions yi tey yàlla may nañ ndam yàlla ñu yàlla defal jël coupe. waaw waaw waaw. gis tey ndam li dafa tombé lan lay firndeel. wa Pape Bouba Diop yàlla ko yàlla xara àjjana góor yàlla la woon te ku bëggoon titre équipe nationale la ku bëggoon drapeau équipe nationale la kon bu ñu jëlee bés bi tey jagleel ko ko xam naa ndam day am incha allah te yàlla may na ko ndam yàlla ko yàlla xare àjjana fil daw si jàmbaaro tey mbégte bi ñu jëkk am français yi libé peuple Sénégal tubaab yi bu liberté bi ñu jëkk am Pape Bouba Diop moo ñu ko may moo li moo ñu libéré contre France boobu ba léegi tey Sénégal turam egg na foo xam ne nouveau la waaw Sarr bi mu dugalee ak Kalidou Bally dañ ko rendre hommage à travers ci geste bu mu daan def bu dugalee naka nga jàngatee mbir moom mais loolu dafa nekk loo xam ne rafet la ndax nit day ku démb tey lu mu neex neex tey bu soñoon tey Pape Bouba Diop mu nekk si ne kanam di football wala doomu Tëngéej mais tey moo ci ne fierté kon ñuy gërëm sa peuple Sénégal yëpp ñu xam ne na ñëpp jàpp si équipe bi amul chrétien amul julit amul amul amul amul euh, tijaan amul muti amul ñëpp nañ si jàpp nañ bokk ndey bokk bàyyi tey coupe du monde war na fi mën a ñëw ndax suñu ah. départ coupe d'Afrique neexul woon kon yàlla mu ngi ñuy bil buntu kon nañ yéenante jàpp jàppalante te yàlla tax waaw loolu da am